ak ñett ci weeru février bis na tey fukki at ci gannaaw euh, moom président Abdou euh, Abdoulaye Wade nag xam ngeen yooyu jamono ma nga euh, nekkoon njiitu réew ci la nag moom mooy président bu njëkk ngeen baal ma bu wàcc fële ca Pointe Sarène muy ci Pointe Sarène la duggoon muy roplaan boobu mooy premier président président bu njëkk bu wàcc ca aéroport bu Diass yooyu jamono nag mi ngi àndoon ak Elimane jawriñ ji ñu ko doon wax ci jamono Souleymane Ndéné Ndiaye bokk fàttaliku bésu tey yem ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février ñu seetaan ko dellu siwaat ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2021 jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak action sociale Abdoulaye Diouf Sarr moo njëkk a eh, ci mbas mi loole nag bokkoon ci programme bi ñu tëraloon ngir fekk askan wi ci mbas mi Sénégal nag ci jamono joojee jot loo bu njëkk bu jëm ci ñàkk yooye mu toll woon ci ñaari téeméeri junni dose euh, tukkee ci laboratoire bi fekk baax ca Chine euh, Sinopharm. ab sénatrice la woon ci Colombie Ingrid Betancourt ak ki mu daan jëflanteel di Clara Rojas ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février. atum 2002 ci la ñu leen euh, fëkkoon ca euh, Colombie ñi defoon loolee nag di fippu yooyu ñu duppee euh, FARC ñi ngi leen jàppe woon ci ab àll def nañu fa ay ati at Ousmane Sonko mi jëloon ñetteelu place ci faluk njiitu réew bu Sénégal ñu doon ko jiiñit wàllug sàkku moom moomee ñi ko doon jàppale di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2021 ci la leen yoon woolu woon na Sénégal nag mi ngi daqaloon jëflanteem ak réew ma Iran ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2011 loole nag gannaaw ab bato bu ñu jàppoon ci Nigéria mu yeboon nag ay ngànnaay yu takku lool waroon a jëm ca Gambie ngànnaay yooyu nag ñu ne rebelle yu MFDC lañ ko doon jox. dañuy taxaw tey ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2012 ak roplaan boobu di Pointe Sarène tegu woon nag euh, ci piste bu aéroport bu Diass président Abdoulaye Wade mooy njiitu réew bu njëkk a wàcc ci aéroport boobu nekkoon ci ab chantier moom la woon ak ki nekkoon njiitu jëwriñ ci Sénégal di Souleymane Ndéné Ndiaye ak ki ñu dénkoon wàllu infrastructure di doomam Karim Wade Souleymane Ndéné Ndiaye mi jiite woon gouvernement bi ci jamono jooju nag mooy dellusiwaat euh, ci bis boobu ak nag. acte bi maître Abdoulaye Wade def sole si mu am. yaakaar naa ne li ci jublu woon rek mooy wane ne aéroport bi liggéey bi avancé na bu baax a baax ndax euh, Boeing 737 la yoroon bu mënee atterrir ci piste bu mel noonu fekk aéroport bi sax réceptionné guñ ko euh, dafay mel ni donc piste bi moom li ci desoon mu pare bariwul euh, bañ fa jógee it wàcc dañu dem ci Euh, pavillon d'accueil bi bi nga xam ne fa la passager yi di euh, pavillon arrivé passager waaw fa la defee discours am yëpp d'ailleurs ñu xool ne liggéey bi desoon na c'est vrai mais am na lu bari lu pare woon donc li mu ci jublu woon rek mooy wane ne liggéey bi mu tàmbale woon euh, ci 2005 parce que yàlla def na man fekkee naa bi ñuy posé première pierre wu aéroport boobu sax président colonel Khadafi Mohamed El Khadafi guide de la révolution libyenne mu ngi fi woon président Macky Sall moo nekkoon premier ministre ci jamono yooyu waaw yéeg-yéeg bi ma ci amoon nag yéeg-yéeg bu am solo la ndax euh, euh, président Wade euh, ci boo ñu xoolee dimension aéroport bi ak conception bi ak plan yéeg yëpp dafa wane rek xalaat bu yaatu bi nga xam ne amoon na ko ci réew moo xam ne dafay jëm kanam ni mu war a tëddee waaw te yemale ko woon rek ci aéroport boo xoolee lépp lu mu fi def rek dafay uute ak li nga xam ne moom lañ fi fekkoon Euh, boo xoolee sous préfecture yi nga xam ne moom na fi ñi ñi mu remplacé euh, defoon euh, nga xool sous préfecture yi ñu tabax préfecture yeeg gouvernance yeeg yëpp daal maanaam li mu fi def daal moom macha allah tubarkàlla sant rek bon évidemment président Macky Sall aussi góorgóorlu na ci bu baax a baax a baax ci wàllu infrastructure rek yu demee noonu stade de Diamniadio bi nga xam ne dañ koy tuddee maître lay Wade muy lu rafet loo xam ne àddina yëpp daal. ñu ci ëpp bokk rafetlu nañ ko parce que naa sax ñuy wax naa lu tax tuddee wuñ ko ay sportif ak yooyu mais yaakaar naa ne euh, tuddee ko maître Abdoulaye Wade ak tuddee ko keneen euh, defe yemul. aywa muy nekkoon euh, monsieur le ministre Souleymane Ndéné Ndiaye ca yooyu jamono nag moo nekkoon Elimane jawriñ ji ñu yeggoon ci roplaan bu na dippee Pointe Sarène wàccoon ci aéroport Diass c'était en 2012 le 23 février Malick Thiandou et puis euh, li li li ci xaw a yéeme mooy en pleine campagne électorale euh, le président Wade à trois jours de la fin de la campagne la jël décision ni day dem euh, atterrir ci aéroport aéroport jaas boobu mu nekkoon aéroport boo xam ne pareegul woon dafa nekk en chantier jéem nañ ko dissuader mais mu ne day dem donc ñu bëri dañ jàppoon ni c'était day xaru wala c'était à des fins purement électoralistes mais xam nga Wade mus na ko wax mu ni ce qui fait ma force c'est que je suis imprévisible et mm. intransigeant mm. imprévisible intransigeant mu ne damay wàcc par force mm-hmm. sama sama aéroport la maa ko financé maa ko defar maa ciy njëkk a wàcc wàcc na ca nag mais avec tous les risques qu'il y avait vraiment mm. mu wàcc ci gars yi yi nga xam ne ñooy adversaire politique yi parce que moom moo nekkoon candidat fal 2012 mm. donc ñu ne ñu ne lii da koo def pour convaincre sénégalais yi ñu dolli ko pour mu yeggale chantier bi et et puis lii prouver que ne c'était très prématuré et très risqué mooy cinq ans après la ñu soog a inauguré la ñu a inauguré aéroport bi mooy le le 7 décembre 2017 mm-hmm. donc c' vraiment une stratégie de campagne mm-hmm. pour convaincre les Sénégalais que ni yes mën naa ko def naa ko. te aéroport bi dina pare bu ngeen ma sampaate. incha allah Chérif. <laughs> mais taxul nit ñi fal ko parce que bon yóbbu nañ ko déjà deuxième tour deux jours après élection yi moom Macky Sall mii ñoom ñoo fa mujj dajawaat. Mhm. Macky Sall daal di ko gagné à l'époque ngi doon wax sax Wade kii xaw ma inaugure son mhm. euh, nag y en parce que piste piste d'atterrissage bi rek moo pare woon parce que aéroport bi tamit gis nga lim jural ci kopp contrairement ak euh, stade a xamante ni finalement Turquie ñoom ñoo ko mujjee eggali ba moment bi aussi ñoom yor li nga xamante ni moom mooy gestion bi Blaise Diagne lañ ko mais Macky Sall bi mu ñëwee aussi Wade Abdoulaye la ko bëggoon tuddee Abdoulaye Wade moo bañoon ne moom euh, aéroport bi c'est son c'est lui qui a eu l'idée de baptiser l'aéroport au nom de Blaise Diagne moo tax tamit affaire stade bi ñu mujj ko tudd Abdoulaye Wade. voilà bien merci beaucoup euh, Chérif Dia euh, complément d'info ma Thiandoum également 7 euh,